gars yi maa ngi leen di nuy di leen jaar kenn ku nekk eh, ci sa tur ak sa sant bon ñëwoon tey pour bëgg a baaxee ñenn ñi puisque lu ma seetlu la ay bëri na ay doomu aadama yoo xam ne dañuy utiliser WhatsApp mais une fois ñu perte seen téléphone ñu sàcc ko walla ñu téléphone bi paan walla mu yàqu et tout euh, comme lu mel noonu daal suñ ko récupéré waatee. installé waat seen whatsapp dañuy ñàkk seen données yi nekkoon ci téléphone bale bon ma xam ne am na benn technique boo xam ne nit mën na ko def pour mu mën a récupérer waat message am yi nga xam ne ñoom la ñàkkoon waaw loolu daal moo waral ma defar vidéo bi ah pour commencer da ngay ubbi whatsapp comme nii ma def nii lii moo gis ngeen moo nekk whatsapp nga bës ci ñetti point yi nekk à droite nga dem paramètre mooy fi mujjee ci suuf su ko defee nga def nga dem discussion soo defee soo demee discussion di nga gis euh, fi ñuy wax fi ñuy bind sauvegarde mooy ci suuf nga dem sauvegarde boo ñëwee sauvegarde da nga gis ne euh, WhatsApp dafay sauvegarder say message mais bu fekkee ne WhatsApp dafay sauvegarder say message nii boo boo boo boo demee ba nga perte sa whatsapp pour nga retrouver waat sa message yi nga perton day day xaw a jafe mais dafa am foo xam ne il faut nga am compte euh, li ñuy wax compte Gmail wala lu mel noonu daal gis nga man sama bas lii mooy compte Gmail bi ah léegi boo bësee fii daf lay indil ajouter une compte su ma bësee fii. da ngay gis ne dafay sama sama sama téléphone dafay ubbeeku pour dem laaj ma pour ma pour ma mën a connecté wu ak compte Gmail bi gis nga ma dugal adresse bi dugal mot de passe bi une fois ma def loolu rek ah euh, WhatsApp da koy jël day synchroniser léegi sauvegarde yi ngay def dafay dafay kii dafay nekk ci compte Gmail boobu saa yoo ñëwaatee di. ubbiwaat sa whatsapp ci beneen téléphone soxlawuloo di transférer lenn li puisque euh, sauvegarde bi day day am gis nga sauvegarde moo quotidienne gis nga quotidienne bu la neexee nga dindi sauvegarde bi waaw su la neexee nga def ko aussi saa yu la saa yoo bëggee sauvegarder hebdomadaire wala mensuel mais soo ko defee quotidien chaque jour bu ñu demee ba ay 2 heures du matin 3 heures du matin yow doo ko yëg mais sa téléphone bu amee connexion rek Euh, WhatsApp moom moom dafay dafay dafay sauvegarder sa message yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk su fekkee danga bëgg a sauvegarder waale vidéo yi da ngay da bës option bii ci suuf mais euh, ci lay gën a diis waaw vidéo mooy vidéo yi lay envoyé waaw clip yi lay envoyé genre yooyu quoi waaw noonu la demee donc loolu laa bëggoon a séddoo ak yéen waaw pour que euh, ñi nga xam ne xamuñu option yooyu ñu profité ci waaw am na aussi benn option bu ñuy wax euh, option boo xam ne dañ koy wax sombre maanaam euh, nit ñi nga xam ne dañuy utiliser WhatsApp lu bëri par yenn saa yi seen batterie téléphone day gaaw vide waaw puisque bu fekkee euh, téléphone bi dafay connecté wu ak réseau 4G en même temps muy utiliser nga ngay utiliser WhatsApp di ci nekk lu yàgg benn. baaxul si bët yi ñaareel bi aussi bon mën na metti sa bët ñaareel bi aussi nekk na loo xamante ne day gaaw a jeexal sa batterie am na nag mm, mode sombre lañ koy wax loo xam ne WhatsApp daf ko génne yàggul bu baax loolu aussi euh, soo ko activer rek da nga gis ne sa téléphone nu doon gaaw vidéo ci côté WhatsApp bi dina xaw a wàññeeku en même temps ci xool bi aussi moom moo gën a kii bon dama leen di woon lii mooy mode clair gis nga dans les am na ñu bëri ñoo xam ne seen whatsapp nii la mel waaw gis ngeen ko nii mais man euh, soo mën nga ko changer nga def ko mode sombre waaw donc day ñëwaat nekk lu noir nii wàññi luminosité bi loolu aussi lu lu am solo la waaw euh, beneen mm, kii astuce boo xam ne bëgg naa ko bëgg naa ko mm, kii ak yéen tamit ni ngeen profité ci mooy euh, vérification jamonoy tey jii euh, am na ñu bëri ñoo xamante ne seen seen téléphone mën nañ ko perte comme nit mën na ko jëlee tout ça euh, te bu ko jëlee mën na maanaam utiliser say données yi nekk sa biir téléphone envoyé ko keneen walla en tout cas daal xam ko xam leen ne nit mën na jël téléphone téléphone defar ko de telle sorte que changer données yi ba nga xam ne whatsapp am même bu tëjul téléphone bi whatsapp bi moom kenn du ci mën a dugg loolu lu am solo la gis ngeen ko nii waaw vérification à deux étapes su la neexee nga def ko nii waaw léegi une fois nga def ko lii man noonu laa def sama téléphone en chaque fois ma changer téléphone ma changer téléphone jël sama numéro whatsapp dugal ko ci beneen téléphone su ma ko taalee rek daf may laaj benn code boo xam ne man rek maa ko xam kon même boo xamee sama numéro téléphone même bu nit sàccoon sama numéro téléphone tey wala ma perte numéro bi Orange jaay ko keneen par hasard kooku xam sama adresse mail su ko dugalee dugal sama numéro téléphone aussi du mën a dugg sama biir WhatsApp ndax dafa am code boo xam ne man rek man maa ko xam donc loolu aussi Euh, lu am la waaw bu la neexee nga modi modifier sa adresse mail gis ngeen ko nii moom moo nekk ci suuf changer code PIN waaw moom moo nekk noonu waaw donc yii yëpp ay kii la yoo xam ne euh, nit ñi war nañ ci mën a bàyyi xel waaw donc euh, loolu laa waxoon ne tey itam dinaa ko dinaa ko séddoo ak yéen incha allah waaw di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne ngeen moytu seen téléphone yi puisque Euh, nit ñi moom mooy loolu am na ñoo xam ne dañu dañu kii trop dañu doy waar trop waaw dañuy xool fu nekk di jéem a utiliser téléphone jàmbur pour hmm, pour euh, jéem ko xamal dara waaw WhatsApp moom nit mën na ko sécuriser léegi de telle sorte que waaw même empreinte digital beneen yoon dinaa leen indil yeneen kii yoo xamante ne lu mel soo yoree téléphone boo xam ne dafa am empreinte digitale su la neexee aussi mën nga utiliser empreinte digitale muy tijji WhatsApp. saa yoo ko tijjee rek dalay laaj empreinte digitale nga teg sa kii beneen yoon dinaa ci ñëwaat bu soobee yàlla maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam